maa di sab géwël tey ma way la man jàng naa la gont naa la xëy la dobi si doo xam fak yaa di got si ma got feeta naa la maasal arsi yaa tëdd yaa tegginu am daraaga yaa ñàkkutuma yow amula yaraaga yaa gàccu salawaak ndax bis bii la Sëriñ Tuubaa waxoon yàlla boroomam ne ko bis bi gën ci samay bis nag ma ko defal muy bis bi may dajeeg yow te mooy bis bii yàlla dogal euh, mu dénkoon ko Cheikh Modou Moustapha Cheikh Modou Moustapha def ci mat gu mat sëkk ndax Cheikh Modou Moustapha moo dox diggante Sëriñ tubaa ak tubaab yi ba tubaab yi yóbbuwu ko Cheikh Modou Moustapha def ca mat gu mat sëkk ba bandi ko Tuubaa Eh, Cheikh Modou Moussa it wax ci wax joo xamante ni wax ju réy la ndax nee na màggal gi fu la fekk boo mul paas boo may yaari mbubb na nga jaay mel ni mbubb màggal se ko boo ko amul dëkk boo ne na jaar ca yoon wa wi jëm Tuubaa dox ba sori doo dëpp wax na it màggal gi ko ci fanaan set nga fi ci ci bàkkaar kon màggal gi mooy lépp màggal gi nag ba ko Cheikh Modou Moustapha dee màggal ba jóge fii fekki ku te mi dafa tegu ci loxo yi Cheikh Serigne Cheikh Mbacke mu di ko màggal di ko màggal ak njaboot gi ba sëñ Cheikh ñi bi àjjana sëñ Mbacke di ko màggal di ko màggal ba ñi bi àjjana Cheikh Abdoul Fatah Mbacke mii di rakkam ñu bokk mu am soxna loo ak Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma di ko màggal kooku nag laa leen wax ci ci jukkoom mu Cheikh Abdoul Fatah ndax Cheikh Fatah moom jukkoom mooy alxuraan ak sunna mosu koo wàcc ku amu fit la ku gore la kuy dikku nangoo dimbalee la bari yërmande lool bari njariñ lool ba ñëpp xam ko kookoy Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma bari xam-xam lool ci jëfe ko ba yàlla dogal gis ngeen jumaa ji fii sëñ Mbàkke bàyyi woon ni ko yeggalee ci yeggale ko gaaw ci laajul kenn dara kooku mooy Cheikh Abdoul Fatah Mbàkke këram gi ngeen ñëw tey nag Cheikh Cheikh Moussa Fene ak i rakkam sëñ Cheikh ak sëñ sëñ sëñ Mohamed ñoo fi ne ñu ñaan yàlla seen fan gudd lool ndax fa seen way jur tegoonu tànkam rek fa lañu ñu teg seenu tànk alhamdulillah xëyla da bisu da xam fak yaa di gorsi ma gor a ala maasal arsi yaa tedd yaa tegginu am daraaga yaa ñàkkutuma yow amula yaraaga yaa gaaw ci solo waa ko jël waa ñaambur ku ne nga naa Cheikh Mbacke fay na saay bor waalo ki siin waalo fak ñaambur doo fat fat loo ko dox di goddi doo gadde doo gadde yaa ni wadd yàlla na sa bañ yëpp xëy na koddu walaay baaw walaay baaw bu dee ami bañ doo gis bañ nana naram danum soy na faraas Cheikh Mbacke yaalik dan foo yend foofa de ndaaru janna te li nga def ci réew mi dañ ah. na Sénégal fii ci sëñ Abdou Fatah Mbacke doomu Serigne Cheikh Gaynde Fatma rakku Serigne Mbacke soxna loo gis ngeen ziar yi nga xamante ni si jël nañ ko fi macha allah leen di jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah jaa ngeen def. taar ba newoon ca Moustapha moo nekk it ci mi tafa wir ga nañ ko mosula war jalum la wax loola la nar moom lum la dig faye ko bar. kenn mësu koo gis mu bangam